seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang. tàmbali yër yéenekaay yi ak ñàkkug ndox. gu tar lool maral maral bi métti na sangootunu naanootunu moo ne de <laughs> premier ministre moo waxoon ne ñaar fukki fan lépp jeex lépp dellu siwaat normal yéen kay bilisé ko ne ko du dëgg la nga waxoon amul benn yoon du dëgg premier ministre la nga wax dara amu ci tey jii la dakaar gën a mar mar nañu lool gisuñu fi pepp ndox kon nag la nga wax dara du ci dëgg say kàddu rido la kenn du ci wéeru benn yoon Y'en a na dafa doy dafa doy sëkk ak barke nag PC bi pays sans eau la léegi opposition nag kacc gu rëy moo am ci waxi premier ministre boobu le rédacteur en chef bu les échos na premier ministre ñaare mën a am de nga démissionné wala lan nga taxaw jéggalu ndax nag yaa wax wax joo xam ne dara amu ci Macky Sall talul loolu coono askan wi talu ko nu mu faluwaatee lay wër ci biir yéenekaay bii di laas ñu yëgal ne dalal na Modou Diagne Fada ak ñamu ànd ak waaye nee na réew mi terrorisme intellectuel moo fi am yéen kay bi Les Échos na ko demal jàng say cours histoire président yow def nga njombe bu réeréy si benn tweet boo def ba nga demee seeti si Amadou Mahtar Mbow ba pare da nga ne ancien secrétaire général UNESCO déedéet moom directeur général bu UNESCO la woon enquête na un ah, tiit naa de ndax nag violence politique dina am fi mu nekk nii ku nekk yaa ngi fëgg sa dënn di wax El Hadj Amadou Kassé mi nga xam ne mooy conseil communication bu président de la république nee na 2012 ba léegi opposants yi wax ju bon lañ fi nekkee di xaste di sosal di désinformer di intoxiquer rek lañ fi nekkee Cheikh Bamba Dièye tontu ko na ko violence kay ñi ngi ko gis ñi nga xam ne ñoo yor doole nguur gi di ko xeexee askan wi te teguñu ko ci yoon xool leen dossier yu yées yu bon yi nga xam ne nguur nguuru Macky sàll yëkkati na ko fi. moom injustice bu leer naññ fi mu nekk nii état de droit nërmeelu waaw loolu lan lañ ko mën a tuddee benn ci mandarga mi ngi lan xalifa Ababacar Sall front pour la résistance nationale di def procès Macky Sall ci biir yéenekaay bi nga xam ne moo di le quotidien ne fi mu nekk nii xalifa Sall bu desee ci biir kaso bi ba tey jii bëgg-bëggu Macky Sall la déedéet moo sant juge yi juge àttewul lenn te nag li am ba des défense su kii di xalifa Ababacar Sall ne duñ ko bàyyi de déedéet dañuy xeex ba mu saf sàpp ci biir yéen a Le Quotidien ñu ne ñoom dañuy sàkku ñu annuler procédure bi. enquête nay avocat Khalifa Sall kay nee nañ déedéet libération immédiate rek lañu bëgg moom la ñu layoo démb ci ñaareelu fanu procès bi Vox Populi na met Doudou Ndoye xool na juge Kandji ba seppali ko na ko yow rek yaa mën a sauver Sénégal. ndax ci guuta la ñu nekk ñoo dem magistrats Sénégal mer ba futt ci kàddu yi nga xam ne maître Ousseynou Fall da ko yëkkati woon jëmale ko ci juge Kandji na ko un juge corrompu loolu nag métti na lool Union des magistrats Sénégal ñu ne kàddu yooyu tegginuwul rafetul benn yoon yéen kaay bi Les Échos ne cantakun yi den sàkku liberté provisoire bañal nañ leen ko procureur nee na seen grève de la faim bu ñuy def forme de chantage dong la nguurug Macky Sall di def lu ko neex opposition bi ne mukk du fi amee nee nañ dañuy dem ci kilifa diine yi yëgal leen nag loolu lañ yéen kaay bi Vox Populi xamal weeru août ñu dàbbaliwaat marche Mary Teuw Niane mer ba futtu ci li ñu wàññi budget ci biir yéen kaay bii Le ko mu ne jaaduwul tey jaaduwul suba lii nga xam ne Cheikh Tidiane Gadio ak Patrick O dañ ko doon sàkkuñu ñu annulé cinq chefs d'accusation corruption wàllu guerre yéen a Les Échos ne juge bi daf leen ko bañal jàpp na procès bi nag ci weeru novembre jërë ngeen jëf dégg bi ñu leen dig altine jàmm incha allah.